salaamaaleykum mbokk téléspectateur u Malikia TV leeru Maodo comme nuñ koy defee saa su ne maa ngi ànd ak sama sëriñ sama xarit sama idole El Hadji Mansour ci seen émission bu mag bi di seen tàndarmay koor yaa stage ñu ngi lay nuyu di la sargal ah ñu ngi lay delloo nuyoo Mouhamadou Mbuub amati mbégte ak kontante dellu siwaat fii ci émission bi nga xam ne mooy seen tàndarmay koor di nuyu bépp téléspectateur bu Malikia TV leeru Maodo fu mu mën a toog xam naa ñu ngi ci kanam écran bi di waaja a dog wala ñu dog ba pare. mbub ñu delloo la kàddu gi. jërëjëf yaa oustaz comme foofu nga tëjee wax ji rek foofu laay duggee ci sama laaj bu njëkk oustaz lan moo gën ci dog koor. gën li gën ci dog koor mooy tàndarma ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax na ko ci xadiis def na ida aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu baraka. nee na ku ci woor ba ngoon su fekkente ne am nga tàndarma na nga doge tàndarma. Mm-hmm. mu mel ni dañu ne ko yonent bi alayhi lu tax. ne barke mu ngi ci te kat scientifiquement dana ñëw ci kanam lan moo tax ma gën kon l'islam ndekete Mouhamadou Mbuub yaa ngi toog ci kanam écran Malikiya TV leeru Maodo lépp lu mu wax ne def ko doonul ne culte kese la wante am na leneen lu ci làqu luy jëriñ nit ci yaramam donte nit ki xamu ko waaye bu ñu demee ba jëmmi jamono rek science dana wax ne lislaam kat lii bi mu koy digle ndeke njëriñ lii moo ci làq woon waaye ñun ñoo ko xamutoon Mouhamadou Mbow loolu dafay dëggal ñu wax ni la science confirme le Coran ah ndax lislaam boo sens la dëgg la <laughs> jërëjëf yaa oustaz mais soo amul tàndarma nag soo amul tàndarma nag da wut ndox ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne woon fa in lam yajid tamran fal maau fa innahu tahuur mhm. nee na woon bu fekkente ne waa ji dafa woor ba ngoon jot amul tàndarma mhm. na jël ndox ndax ndox lu laap la ci ngay daal di comprendre nag yow mi toog ci kanam écran Maliki TV leeru Maodo Mouhamadou Mbuub mhm. kene l'islam sonalul kenn bu amul tàndarma bu fi nekk di tuñ tuñi di dem di leb mu ne la jëlal ndox mu remplacer ko telu laap la mhm. loolu mooy wanee ne nag Mouhamadou Mbuub koor bu ñëwee mhm. warul nekk loo xam ne dafay yokk ay dépense ba jaaxal nit ki xam nga koor a ngi ñëw nit ki tiit te koor nag dafa waroon tax jaamu yàlla dafay dalal xel mhm. loolu ñu bàyyi ci xel Mouhamadou Mbuub dëgg la yaa oustaz waaye bu fekkente ni tàndarma lañu la la l'islam digle waaye pourquoi tàndarma njariñam waaw njëriñal tàndarma kenn ku ci nekk boo demee ci science comme li ñu doon wax léegi mooy tàndarma wax nañu ne scientifiquement dafay yokk gis-gis te loolu lu baax la macha te itam gis nga nit ki bi mu xëyee fajar ba jant soo lekkut mhm. estomagam dafay mel ni lu xaw a wow tàndarma dafa am ay ferñeent yoo xam ne scientifiquement soo ko lekkee bu duggee ci biir daf koy nettuwaaye et puis itam daf lay joxaat beneen force daf koy jox estomac bi te dafay tax boo lekkee dara teg ko ci mhm. loolu dafay gaaw a rees Mouhamed Mboup jërëjëf yaa oustaz waaye comme ñu ngi ci waxtu dog bi mhm. yaakaar naa ni war nañu leerlu li nga xamante ni mooy waxtu bi war a dox ci diggante waxtu bi ngay dog ak diggante bi ngay jullee nan la war a toll lislaam diina la joo xam ne diina ju yem la mhm. ëppalut yéesalut bu fekkente ne dog nga lekk sa quelque tàndarma na doon yu tool na doon benn wala ñett mhm. xam naa ne jangeen yi ak jaañeen yi ñoom ak ñangeen yi ñoom dañuy lekk ba juróom su ko defee bu dee kuy naan kafe la nga guux sa kafe daal di dem julli timis mais nag am na loo xam ne Mouhamadou Mboub sénégalais yi nañ ci bàyyi xel am na koo xam ne day def façon boobu day gaawal dem julli ji ndax dafa bëgg a mën a fareeg boppam pour lekk mhm. loolu itam dañ ko war a bàyyi xel dëgg la nit ki dana lekk ci weeru koor mais lekk rek taxul ñu yoonal koor dëgg la kon nag dafay def lu jaadu mhm. mun na lekk tàndarmaam naan kafeem même bu doon ne def ci boole mburu ci ñi nga xam ne mënuñu xaar ñu boole ci mburu bu yem mhm. daal di pare lu toll ci ay dix minutes wala sept minutes euh, cinq minutes wala sept minutes nga pare gallax ndiku dem julli Muhammadu Mbuub waaye nag toog rek di ndog rek di ndog rek di ndog rek jëme bu kenn xamut loolu nag moom ab julli daf koy wattandiku foofu yaa oustaz kon diggante bi ñuy dog mhm. ak waxtu julli bi mhm. war na am différence dix minutes du du lu war su fekkente ne waa ji mën na ko def ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci benn xadis ne ida quddima al ashaau fabda'u bihi qabla salaati al maghrib daf ne bu fekkonte ne tey yow dañu ñëw rawatina koo xam ne da nga nekk ci kër goo xam ne yow yuroo baat bi ñoom ndogu li dañ koy indi bu ñu dogee rek dañ koy teg nga daal di ñëw ñuy dogu nga daal di ne damay bàyyi man sax benn tàndarma wala guux benn kafe dem julli ji muy kër ak jaboot goo xam ne bala ngaa ñëw mhm. da ngay fekk par gars yi lekk saucisson yeeg fromage gruyère yeeg et cetera l'islam nag gis nga solution bu mu indi mën a la mhm. toogal nga ndogu ba pare soo paree toog a julli mhm. waaye li ñu waxoon la ñuy dellu rek mooy na doon lu jaadu buñ fa toog di waxtaan jëme bu kenn xamut ba mu neex ñu ñu soog a dem julli ji Mouhamadou Mboub macha allah jazakumullahu ana jërëjëf Mouhamadou Mboub seen tendre may koorong nañu de macha allah jërëjëf